honorable député Souleymane Ndoye ñu ngi lay nuyu. na lay fay. député nga ca assemblée nationale bokk nga itam ci coalition Benno Bokk Yaakaar honorable mm gis nañ ni li nga xam ni moo jëm ci àjjuma bi ay manifestation daanaka ci ndakaaru ak sax ba ci yenn ci ay localité Thiès mbuur ba ci Saint-Louis ba nga xam ni béti étudiant ñàkk na fa bakkanam ñu ngi xamal itam beneen ndaw itam ñàkk na bakkanam ca diwaanu Pikine lan mooy si sa réaction bu njëkk. Ah, li di jaale euh, étudiant boobu ñu wax ne dafa ñàkk euh, bakkenam euh, fale si Ndar si kaw projectile bu ko dal defe naa ne procureur autosaisir na di def enquête pour ñu wax exactement si yan condition la ñàkk bakkanam di ko jaale famille am di ko jaale peuple Sénégal bi si des bi nga wax léegi nii si yéen laa ko déggee mais su fekkee ne lu nekk la aussi vraiment ñu ngi massawu njaboot yi mais di wax ne nag Sénégal euh, nañu delloo xel yi ci dal ndax euh, lii ñu jëm defarul kër gi te li mën a gën a defar kër gi mooy ax lu munti am war nañu mën a toog di waxtaan ci dal pour jàmm am Sénégal manifestation yi ñu dund mars ak juin war naa dugal sunu bopp yi ne violence xeex yàq defarul réew mi loolu nag euh, lu ñu war a bàyyi xel la euh, di ñaan yàlla Sénégal nañu dem si dal ndax ji oote woon manifestation boobu séentuwuñu si woon lu mel noonu séentuwuñu si woon lu ñaawee nii am moo tax dañuy ñaan yàlla yàlla na xel yi dellu si waat ba sénégalais yi muy opposition di majorité di société civile war a mën na très rapidement ak si lu gaaw delluwaat si waxtaan pour que Sénégal mën a ànd si dal ba li nga xam ne dugg nañ si ñu génn si si jàmm asalaam. lan moo war a indi dal bi bu fekkee ni dafa am ñenn ñu taxaw ni élection yi moom falaa budda rek faw mu am. waaw mais xam nga ku nekk rek ak sa gis-gis ak sa xalaat. ndax Sénégal benn bopp la kenn mënu kaa xar ñaar mais ku nekk war ngaa mën a am xalaat mais dama yaakaar ne président de la république bu convoqué waan ay élection désigné candidat am jël disposition yi war yëpp pour ay élection am ay candidat yoo xam ne dañu yaakaaroon ne ñoom seen wareef pour ñu mën a bokk kenn respecté wu ko seen àq bi ñu daj am na lu si lëndëm loolu ñooñu am nañu droit dem ci ki nga xam na ne moo yor cëgalu réew mi yëpp ñu bind ko leetar ne ko dañu bëgg nga rétablir ñu ba ñu war a mën a bokk ndaxte lii ñu tooñ ci wàll yi yëpp doy na waar te ci condition yooyu élection bu leer bu bu jaar yoon amul senegal rax ci dolli am keneen koo xam na ne sénégalais la déposé baayam waajuram nekk fi président de la république mu déposé candidat ñu rejeté ko pour des problèmes de nationalité te si doxalinam am na foo xam ne jaaroon na fa dem si consulat Doha ñu defal ko accusé de réception si ambassade de France comme quoi que renoncé na euh, nationalité am indi document yooyu yëpp déposé ñu ne ko mënoo bokk ndax da nga am double nationalité wax yi bari si assemblée nationale ba mu partem bokk am si si sañ déposé déposer commission d'enquête ba mu ko déposer gis nañ ne juge yi ñu accusé kenn si ñoom déposé na plainte aussi contre x ndax dañ ne dañ ko toumal waaw loolu yëpp di préalable crise crise institutionnelle boo xam ne nag kenn xamul fu mu jëm si réew ndax ñañu tuumal ñoom ñooy teg képp koo xam ne ne moom la sénégalais yi tànn te tey fi mu nekk nii xel yi lëndëm nañu si liñ leen waxal ñaareel bi mooy ñooñu seen bopp ñoo nangu tey kenn koo xam ne ne xam nañu xamul contrôlé nañu wala contrôlé nañu def nañ lii seen waref ba nga xam ne ne am na beneen jigéen boo xam ne tey suñ doon battre campagne si vingt candidats yi ñu tànn te amul benn recours bu leen mën a dindi moom dafa war a bokk te double nationalité la am waa si condition yooyu ndax élection boobu am na waree fa bu mën a nekk loolu lu doy waar la lu ñu war a mën a xoolaat la lu koy xool mooy président ba muy recevoir ñële def na leen man décision conseil constitutionnel manuma si dara parce que amul recours wante lii di prérogative am loolu la utiliser ba bi cool yu bare co commission d' enquête am demande de report am mu user de ses prérogatives pour mun a décaler élection yi ki se reste dans l' année électorale. loolu mooy li am société civile bi ne président moom amul sañ-sañ toxal élection yi kon élection faw mu am ba sax aar sunu élection nee nañ ñoom dinañ def ab mars euh, mardi bii nga xam ni itam ëllëg ci li nga xam ni moo jëm ci report élection bi. xam nga xam nga réew mi ku nekk da am say sañ-sañ président de la république am na sañ-sañam constitution am na sañ-sañam moo tax ñu ne amul voie de recours politiciens am nañ seen sañ-sañ nañ droit def ay report ne lépp mais président ba tey posé wul benn acte de rapport am ñu ko saisir ñoo xam ne ne ay acteurs politique lañu ñii dañu bokk si ñii ñu recalé ñii ay acteurs la yoo xam ne ne ñoom bokk na si candidat yi ñoom ñoo ko bind mais lettre bi yéen am ngeen ko journaliste yi monde am nañ ko ñëpp am nañ ko mu ngi si réseau yi mu ngi fépp ñu ne président usel yow en tant que cle de voûte des institutions nga use si say pouvoir pour xool moom pouvoir bi lan la man moo jëloon décret bu abrogé décret abrogé bi lan la def dafa décaler le processus électoral mais le président ba tey laalool constitution visé wul benn article constitution dafa abroger le décret bi permettre mu convoqué woon le corps électoral bi wara a vote nee na comme que coow dafa am si diggante ay institution am ñoo xam ne ne ay sénégalais nii comme ñun buggoon bokk ñu am seen i preuve ak seen élément yoo xam ne ne teg nañ ko si taabal bi ah may leen ma ma abroger lii en attendant ñu xool clair nan lañ mën a xoolee clair mooy ñu toog waxtaan de façon inclusive boole si ñëpp si jàmm ah dal ba ñu mën a dem si ay élections inclusives loolu la président ak loolu lu mën a nekk la lu mën a nekk la ndaxte tey aar sunu élection ñi nga xam ne dañu oote woon tey marche di contester report mais aar sunu élection ñan ñoo ko composé dañuy xool ñan ñoo nekk si biir ñan ñooy membre yi mooy su may wax F24 F24 ñan ñooy membre yi F24 du dañuy société civile la mais société civile warul nekk euh, une plateforme partisane société civile li leen xamee mooy dañu impartial faralu ñu ak pouvoir faralu ñu ak opposition ñoom dañu am seen liberté mais société civile bi ñu gis Sénégal si ñu bari dañu far dañu bokk cest di dañu dañuy lu neex nit ba nga xam ne ne dëgg su jotee duñ si àndati loolu war nañu xoolaat doxalinu même société civile loolu. mais ci biir société civile bi am na enseignant yi nga xam ni décrété nañ ab débrayage euh, bi nga xam ni suivre nañ ko bu baax am na itam ci biir société civile ko si depp ak yeneen organisation yi nga xam ni itam ñoom nee nañ faruñu defuñu politique. xam nga société civile dafa war a nekk le relais de la voix du peuple mais société civile boo xam ne ne da nga far syndicat sa mission ce n'est pas d'aller en grève sur des domaines politiques syndicat xam lu leen sant. nañu kaas wala di wax yelleefu manquement yi am si enseignants yi def nañ ko ba am si résultat ndax tey soo gisee augmentation de salaire am si étudiant soo si euh, si si enseignant yi soo gisee condition euh, études yi gën a amélioré yi c'est parce que syndicat yooyu ñuy wax mais walu politique du seen wareef ba ñuy génn ay doomu jàmbur war leen a jàngal war leen a former pour ñu dem si ay examen dem si processus boo xam ne ne loolu mooy seen métier naan dañu dugg si kaas wala si ay jàppale ay mouvement politique loolu kenn rafetlu ko loolu du seen taxawaay waruñu ko def te ils sont divisés même si si si processus boobu ñenn nañu jël am na seen i yeneen collègues yoo xam ne ne ànduñu seex ñoom rafetlu ñu ko soo xoolee aussi ñi bokk si loolu di al ñu si des mais c'est c'est déggoo benn këru diine yi xam na ne Sénégal jox nañ leen seen bopp ñu wax si lii ndax nag jiitu réew mi yaakaar naa ne am na décision yoo xam ne bala mu koy jël dina si waxtaan ak ñi mu si war a waxtaanal wante euh, soo jëlee ay association yoo xam ne dañu am féete ñoo bokk si benn mouvement ñuy wax aar suñu élection te ñoom xam nañ seen féete loolu euh, du jox crédibilité as mouvement boobu nga xam ne ñoom li ñu war a teg war nañu see ànd naneen ndax société civile su fekkee ne sa mission yaa ngi koy dox da nga war di déglu parti yëpp mais man gisaguma société civile bu dem à l'encontre euh, de la majorité pour waxtaan ak ñoom te fii ñu nekk ni si processus bi c'est une majorité et une opposition yoo xam ne ñoo bokk seeni combat pour mën a indi stabilité dans ce pays. te yow sax nee nga euh, waxtaan moom musul deñ ci way politique yi. musul dañ gis nga euh, réew mi li ko yàq guddi dañuy waxtaan bëccëg ñu ne ñu wax la ne mën nee naa la assemblée nationale toog nañu sama benn xarit député sanu jot xarit la sama mag la ndax li ñu boole bari na mu ne ñoom président Khalifa Sall da leen au réunion nuitamment ne leen jàppale leen commission d'enquête bi ndax Karim aussi waruñu ko bàyyi mu wéet waaw mënoo wax loolu ñëw voté commission d'enquête nga xëy na tu es contre le rapport pour que Karim puisse bénéficier de ses droits de présomption mais il faut que mu am enquête boo xam ne ne ñoom ñoo tuumal kenn tuumalu waa PDS ñoo tuumal juge boobu porte plainte donc prémisse crise am na ndax gis nañu li si teguwaat si wax gi am ñeneen ne suñ si bokkul élection du am parce que dañ leen nëng leen dë dëgg sëriñ si loo xam ne ne dara leeru si processus bi ñoom seen bopp ñu porter plainte l'informaticien du conseil constitutionnel mais lépp lu lëndëm si bii ñoom ñoo ko fa teg waaw suñu demee ba conseil constitutionnel bi nga xam ne ñooy installé ki nga xam ne mooy jiitu réew bi ñooy prononcé résultat doute am na si ñoom xelu jaxasoo am na si ñoom war nañu xoolaat suñu doxalin defe na act boobu moo tax tey président posé ce décalage des élections mais décalage des élections lu ñuy waxtaane la mais loolu dafa jar taal réew mi ba nit di si ñàkk bakkanam loolu lan moo indi ba nga xam ne ne lépp loo munti def si réew mi si waxtaan lay mujj li ñuy def nii yëpp si waxtaan lay mujj amul benn guerre bu mujjewul si waxtaan amul benn révolution bu mujjewul si waxtaan donc bala ñuy xaar ba mu sës ba leneen ah leneen di si am nañu teel a dem toog waxtaan te ki ñuy waxtaanal moom du candidat. te dialogue bi lu mën a nekk la te il faut que gars yi dem wuy si lu mën a nekk te lu gaaw war a mën a nekk lu gaaw mën a wut ay solution la man tamit dul comprendre yenn acteurs politique yi ñoom ñoo naan dañu war a bokk suba ñu ne dañ day na élection am waaw loolu nan la mën a nekk nit day am kàddu si doxalinam ak si jëfam il faut pas être populiste et aujourd'hui lu ñu mën a wax mooy nos acteurs politique sont des populistes te loolu baaxul si réew gis nga ni da am gëm-gëm il faut pas être aussi aigri am na ay acteurs politiques ni ni ñuy waxee sax ni ñuy comporté woo da nga xam ne ñi ils sont aigris loolu baaxul si doomu aadama gis nga ni day am tolérance nañuy fàttali ko juróom-ñaari mètre percal rek mu ñu yóbbu àllaaxira dara toppuñu ah lu ñu munti mel nañu indi dëgg dëgg rek la yàlla bëgg te réew mi kenn mënu ko yàq réew Sëñ Tuuba réew Alaaji Maalik réew Limaamu Laay kenn mënu kaa yàq ndax ñaan am na si seen loxo génnewuñu ko si réew mi te acteur yi ngay gis nag ñoom ñëpp dañuy waxtaan de ah lu coow li coow li bari dinañ déggante téléphone dinañ ànd dinañ foo di ree waaw loolu nañ ko yóbbu si population bi bañ a population bi ne ñun buggantewuñu te loolu amul ñu ñaan yàlla yàlla indi dal si réew mi seen marché bi ñuy def marché pacifique marché silencieuse la ko gën mooy dem toog waxtaan ut ay solution proposer ay solution loolu ko gën. honorable député Souleymane Ndoye ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci ni nga nangoo tontu sunuy laaj. jërëjëf ñoo ko bokk. parce que yéen ay acteurs yu ñu ni di dégg lañ xam nga journaliste mission am dafa doy waar. vous êtes chargé de relayer la bonne information. mais vous avez aussi votre avis. mais soyez toujours impartial dans l'information. te loolu dafa am solo. donc yéen si loolu ngeen nekk yàlla na leen si yàlla jàppale. ba réew mi dal ñi ngeen tuddee réew mi seen bopp yàlla na leen yàlla may kàttan ba ngeen jouer seen rôle ci réew mi mu nekk réew mu dal. di fàttali ne yow yaay ancien président conseil départemental bu Rufisque. merci beaucoup waaw loolu yàllaa ko dogaloon ma jiite ko juróom-ñaari at. dogaloon ma jiite ko juróom-ñaari at. dogaloon ma.